سميتها جالبة المراغب في عاجل كعجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع صفاء بائتا أو خائلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه صوين والي الوالي بوك جليدي بوك تالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي نعنى لسليم منتقى ابن شاء محمد البشير خلو نزال كل مريد يالنك في يالي يقل لول تبير الكو دي نعنى لسليم شاء أحمد مكي صعيبو قد فنقو عند أكبر ديوانو خدمة الخديم دي نجابور جيبولي سين بوب takku fas liggeel serigne amsatou Amsatu Asadul qadim ki njiitul serigne ibrahim mañang Touba Brescia ak serigne bergu sam ño am mbégte di wo bokk julit yëpp ak bokki taalibe yëpp ci bis bu bi nga xamne mom lañ baxo di amal tare nak nag ñettelu jotaay bi 8e édition yamo ak samedi 14 septembre 2019 wa ana fumuy amé fa na ko baaxoo daan defee muy fiere di Brescia di ci wo bokk julit yeb di ci wo bokk talib yeb serigne ibrahim khidmatu khadim wote ci na sant ak ñaanal jambari serigne Touba ji tamu ci liggéey ci tol bi ko gënal muy yare ak jangale serigne ibrahim mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ngi ñaanal serigne Amsatu mbake mom serigne Suaybu asadul khadimi serigne borom yagal ko fi. may ko wér ba am parce que yéene liggéeyal maam Cheikhul Khadim sun borom àggale ko bi ahsanil Hal ñuy jottali ndigal nag ci ndigalal Cheikh Mbar gu Samb ma mi nga xam ni moom la sëñ Amsatu Mbàkke moom sëñ Suhaybu jox ndigal lu rëy lii muy daairatu xidmatul Khadim ñuy woote bis bu mag boo nga xam ni ren ji fas yéene amal ko muy juróom-ñetteelu yoon bi ñëw fas yéene di ci woo jullit ñépp di ci jiital nag sëriñ Fallou imam nga xam ni moo fi njiit li sëñ Muntaxa sëriñ Mouhamadul Mourtala tegoon ko fi di ci teg nag mboolem ahlu xasida ak fu ñu mën a nekk ñu leen di woo ci bis bi waaye di ci woo itam euh, ki nga xamante moo jiite jamiatu Cheikhul Xadim muy sëñ Muudu Mbow ak mboolem ñi nga xamante ne si ñoo fi ay dawaayir nekk ci réew mi ñi muy tijani ak xaadar ak fep fi daaira mana nek di wax ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay wo ci bis bu mag bi di xamle nak ni bis bi nañ ko daan defé rek lañ koy defé insha allah moy tambalé ci suba ci alquran al karim ak khasida bangon insha allah ñu ñaan ñaanal ñepp ñu am jamm incha allah noonu lañ ko fas yéene doxale ñu ngi leen di chaaraat bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Serigne Moustapha Diagne ñan la ñu fas yéene àndal bis bu rëy bii. bisimilahi rahmaani rahim jërëjëfati sëñ bis bii nga xamante ni ab diir ak ni ñu koy def mbokk yi nga xamante ni dañ ci daan ànd ñoom saa su ne ñu jàpp ci ñooñu lañuy fas yéene woow di ko jiital nag suñu kilifa. di Cheikh Bass ba nga xamante ni moo nekk ca Bolzano ak soxnaam soxna moom yi ñu ngi leen ciy woo ci bis bi buñ fa jógee jàll ba Torino si jëriñ yi ñuy wax sëriñ Xaadim Ngom bu jógee Torino jàll Novara fekk fa sëriñ Sidi Ndiaye euh, di ko woo ci bis bi di woyit waa Janawa si ndigalu sunu mag sunu kilifa di sëñ Duudu Sàmb buñ jógee foofu nag am woon ak sunu mbokki soxna yi nga xamante ni ñoom it ay at ak nit ñi ànd ak ñoom ci liggéey bi dañuy jàll ba San Remo fekk fa sunu soxna soo xamante ni moom la wax soxna Awa Daba jeng ñu ngi koy woo ci bis bi waaye nag di woo ka nga xamante ni mooy sunu soxla nekkoon ak ñun fii yàlla def tey mu nekk ca Grenoble di fa liggéeyal xidmatul xadim liggéey bu am solo muy soxna Awa Diatta moom it ñu ngi koy woo ci bés bi waaye di woo it soxna Fatou Ndoye ca Mantova di ko woo ci bis bi waaye mënumaa tëj te woow ma ki nga xamante ni mooy sunu député de la diaspora ñu koy wax Serigne Ndango Seck bon donc mbokk yi bis baa ngoog soxna Ndogay nu ngeen di waajal bis bu rëy bii di bisul xidmatul xadim di woo nag sama mbokk jigéen ñi waa kër soxna jaara yi di ci jiital soxna ami sàmb teg ci waa kër euh, sëñ Babacar yi teg ci xaadir yi teg ci laayen teg ci ñépp di woo ñëpp daal ñëpp ñu yeewoo ci diaspora bi ak ci biti maa ngi leen di woo di fàttali nag sama moroomu ñi muy bis boobu nan ko waajal bu baax a baax comme nan ko daan waajalee togg yi nag ñu koy commencé le 13 di àjjuma ji jëm ca samedi ji nan ko defee woon daaw ak fañ ko defee woon maa ngi jox kàddu gi nag bopp wagon bi sëñ bi ko wagon bi neen ma cheikh ma ne munema dama bëgg nga séré mbërgu sama kent ci khidmatul khadim kon nak lolu ndam la waye ndamul Brescia gep la ndamul itali gep la ndamul khidmatul khadim gep la mbërgu jam jamar suñu am asdul khadim auzu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim barke serigne am moom mom serigne mbokki jullit yi mbokki taalibe yi xanaa day dis lol. waaye bu ma ci jotee ci ndigal rek ñu xam ne ndigal jib na waaye ñu fi jot a wax ñépp day li nu li dafa jooy sëkk ak jëm yi fi teew ñuy sant bu baax di delluwaat di sant di gërëm ñépp di jiital sant bi ak ngërëm li ci sunu sang bu tedd bi muy sëriñ xam sa moom sëriñ Sooy moom mi nga xam ni defal nanu lu nu jomb bisam bi del wat ñu fassiyene ko and ak jam ñep ma di ci wo ñep te bayiwuma kenn awma ci xajj awma ci sen kon bisam bi del ci na ñu diko wajal di ci wo ñep di ci wo sama mbokk ci jani di ci wo sama mbokk laaye ni bàyyiwuma kenn awma xajj awma sen ndax señ am sa señ am sam ñep la ñu japp ko le 14 septembre insha allahu rabbi ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin kon ñi ngi sant ñëpp di woo ñëpp di ñaan suñu borom eggale ñu ci ci barke xaadimul Moustapha jërë ngeen jëf. maa ngi jox kàddu gi sëriñ Amsatu Jaxate ahsadu sëriñ Amsatu moom sëriñ Souhaïbou xaadimul Moustapha. bisimilahi rahmaani rahim barke si Abdou Lahad salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi nii ñëpp di siyaare ñëpp foofu waaye mën a nekk di ñaan Cheikh mun Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp di ñaanal suñu am sutu Mbàkke moom suñu soxaay bu itam suñu borom yàggal ko fi mu ànd ko wér di wax itam ci turu mboolem ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen kàddu léegi te jëmee ko ci xidmatul xaddim bi ñuy woote bis bi nga xam ne itam am nañu lu ñu wóor lu ñu leer nañ ci sëriñ bi moo ci joxe ndigal ci lu ñëpp teg seen bët muy cant gi nga xam ne dañ koy def fii ci Brescia di ko def ci ndigal lu am sutu Mbàkke mu suñu soxee bu tareen di juróom ñetteelu at ñu di ko def bis bi nag képp koo xam ne mbégum suñu am sutu sa mbég la te nga am passif man cee ñëw ñu ngi la ciy woo nañ ko na ko suñu am sutu di digle rek lañ koy defee muy jàng xasida jàng alquran tudd yàlla ak berne waxtaan sëriñ dua loolu rek lañ fay lañ fay lañ fay def ci njiital sëñ mbër sàmm ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoom la ko àndal ñoom ñëpp yëkkati nañ seen kàddu ak cant nag dafa munta ñàkk te la tax ñoom ñu ñu yëg suñ bopp ci moom ba tax ñu di ko sant cant googu yi lañuy lañuy la feddali saa su nekk te ab cant daa mënut a ñàkk ci ab jàmm te mboolem xeeti cant yi nga xam ne maanaam lu dajala ci ñu du ko def xeeti cant yëpp boo ko boolee ca yàlla la jëm waaye nag buntu daa mun a ñàkk ci ak cant te ñu am sutum suñu soxna mooy buntu cant gii di xidmatul xadim ñu ngi ciy woo ñëpp foolem mboolem fooy mën a nekk rawatina jàng jàngkati xaside yi jàngkati xaside yi nekk ci gox bi njiital Serigne Sam Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo am na itam ay li muy xaside yoo xam ne bëgg nañ ko faa jàng ngir ñaanal ci sëñ Amsatu Mbàkke moom suñu soxna ak Cheikh Mamadou Muntaxa ibnu Cheikh Mamadou Basir muy li xam ne bëgg nañ ko faa jàng bu ñu boole ko mboolem xaside yi waaye am na ay lim yoo xam ne bëgg nañ ko faa jàng buñu buñu agsee képp xam ne yaa ngi ñëw nga bàyyi waale ko xel te loolu ñu ngi ko yégalaale mboolem kuréel yi ak mboolem duruskat yëpp ñu ñëw jàpp ci bis bi jàpp ci nañ ci daan jàppe itam sëñ bi nag nee na mi ngi sant la wees woon di sant ci liñ toll tey séentu ci liñ ci ci liñ ci liñ jub si te ñaan ci barkeb suñ Tuubaa lu ci waay def mbaa nga mbaa nga doxee ko ci rek nee na mi ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa nga dëppoo ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa te ñu yàgg koo def ci barkeb Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi kon xew-xew baa ngoog le 14 septembre ci Fiera di Brescia sant ak ñaanal Serigne Amsatou Mbacké ibnu Serigne Chouaïb ibnu Khadimul Moustapha a Munawwirus Sudur ak Jalibatul Maraxib jëmb ji nga xam ne képp ku jàkkaarloog moom xamna na ñaanu Serigne Touba nangu na ci mom waxab lanaa zurriyatan tuddiimu alhamdulilah saalih yaa xadimu ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi man jox naa samay aajo Serigne Amsatou Mbacké mooy fay sunu yaajo. alhamdulillahi man jox naa samay aajo sëriñ Amsatu Mbàkke mooy faj sunu yaajo may jekki mbaa may taxaw ma yeewu mbaa may nelaw may noppi mbaa may tawat muy faj sunuy aajo diggante wéetëg wettali koog beroog jaxasoo fu ma fi tol di ko woo borom jaali batu muy faj sunu diggante àll ki kër def fi man mu di benn fu ma fi tol di ko muy faj sama yaajo sëriñ am satu mbàkke yaa di muuru daayira waa xidmatul xadiim yow yaa leen saafara noo ngi liggéeyal xaadim rasoolo fii ci monde bi ndax noom wusoolu am setu Mbàkke ibnu sëriñ son yi bo moo ko fi sos yal na ko yàgg kiilu mag ñaa ngi ñëw ndaw ñaa ngi ñëw ci daayira be ku bëgg raw sak maas ñëwal ci daayira bi rijaalo la ma